bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala alqaidatu thaniya ñaareelu règle bi buy tax nga mën xam lan mooy bokkaale yàlla lan mooy wéetal yàlla ni annahum yaquluuna ni bokkaalekat yu njëkk yi duñ doon wax ni ma daawnahum wa tawajjahnaa ilayhim illa li talabil qurbati wa shafaa ni dara taxul ñuy ñaan suñu xërëm jublu leen tamit ci suñu ay soxla lu dul ngir ñun ñu jege yàlla lu dul ngir ñun ñu jege yàlla waa tamit lu dul tamit ngir ñoom ñu daldi ñuy rambu fa yàlla fa yàlla tettal bi mooy la yàlla tettal ba tax ñoom dañ doon jaamu yàlla waaye tamit di bokkaale yàlla bokkaale boobu ñu sàkku ci jege yàlla mooy la yàlla wax ci alquran ni walladina ittaxadu min dunihi awliya ma naabuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ña nga xamante ne ñoom kat wutal nañ ay ndend di leen jagleel lenn ci ay xeetu jaamu yàlla boo leen laajoon lan moo tax ngeen di jagleel ñii ñaan yaakaar walla ragal wala yeneen xeetu jaamu yàlla dañ lee tontu ñu ne la defuñu ko lu ludul li yuqarribuna ila allahi zulfa ngir ñoom ñu daldi ñuy jegeel yàlla bi ñu layee nii nag borom bi tabaraka wa taala wax ni inna allaha yaxkumu baynahum fi ma hum fii yaxtalifuun yàlla kat dana atte seen diggante ci la nga xamante ne nekkoon nañ di ko wuute ci kàddu gii waaye inna allaha la yahdi man huwa kaadibun kaffar borom bi tegal ci ni moom yàlla kat du gindi du jubal mukk ka nga xamante ne moom wax kat lu dul dëgg la loolu tax bile wax yàlla atte ni wax ju dul dëgg la mooy jagleel keneen ku dul moom yàlla lenn ci ay xeetu jaamu yàlla euh, ñaan yaakaar wàkkirlu ba pare wax ni loolu danga kaa def ngir moom mu jege la yàlla yàlla ne wax jooju moom wax lu dul dëgg la waaye tamit kaka def tamit moom weddi na looloo tax bokkaalekat yu njëkk yi ñoom duñ doon lay ni a ñaanuñu ñi ñu doon jaamu jubluñu ñoom tamit jubluwu tamit ci ñoom ngir ñu lu dul ngir ñoom ñu jegal leen yàlla waaye tamit ñu ràmbu leen looloo tax nag bi ñu waxee lii ah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom ni ñoom gëmuñu waaye tamit mu xeex ak ñoom